Euh, wéyal li nga xam ne moo jëm ci wàllu activité yi màggalu Kazu Rajab di ko amal euh, ñuy ñëw rek ñun ci buntum ñaareel bi nga xam ne mooy wax ci euh, waajtaay yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil waajal nañ ko ko mu jëm ci wàllu yar ak soobu ngiru tasawuf waaye la nga xam ne mooy juddoo ca loola muy ay jikko yoo xam ne jikko yu rafet la yoo xam ne mooy résultat waajtaay woowu kon ci tënk rek bu soobee yàlla loolu lañ fas yéene ànd ak yéen euh, kon ñu xam ne kon euh, Cheikh Mouhamadul Fadil bi nga bi nga xamee ne euh, feeñ na jamono ba jaar fi nga xam ne fa la jaar ci wàllu sàkku xam-xam ci wàccaay yu solo boobu nga xam ne gis ngeen ko ci bunt bu njëkk bi dafa sóobu li nga xam ne mooy yoon wi nga xam ne moom la gaa yu baax yëpp yu sóobu te mooy yoonu tasawuf te muy yoon woo xam ne day jaar ci wàllu yar moom nag li nga xam ne mooy taw tawfiq ji mu am mooy ki nga xam ne mooy wéjuram cheikh cheikhul xadim mën nañ ne ci wàll woowu moo ko defal lépp ginnaaw bi mu ko joxee maam Thierno mu def ci moom xam ak fi jaar fépp euh, ki nga xam ne mooy wéjuram euh, di sëñ bu mag bi moo ko defal lépp euh, mu doon ci ay étapes nag buñ demee ci téere bi danañ ko fa fekk étape bu njëkk bi mooy fi nga xam ne mooy Mauritanie mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi dem Mauritanie ginnaaw bi nga xamee ne Eh, jugee na ci tukki bi nga xam ne mooy tukki géej gi eh, dem Mauritanie ci diggante 1903 bi 1907 kon diggante boobu yëpp eh, sëñ Fallou bi ngi woon ak sëriñ bi ci Mauritanie sëñ bi di ko fa tarbiya ak mboolem murid yi nga xam ne ñoom la fa nekkaloon jaarale ko it fi nga xam ne faraloon jaarale murid yëpp kon loolu mooy étape bu njëkk bi nga xam ne sëriñ Fallou jaar na ci ci wàllu soobu li nga xam ne mooy ngiru tasawuf ginnaaw boobu it ginnaaw bi ñu jógee Mauritanie xam ngeen ne sëriñ bi dem na fi nga xam ne mooy Jolof ci Ceyeen euh, tukki boobu sëriñ Fallou da ko ànd ak euh, sëñ bi. Euh, xam ngeen ne jaaruwaay yooyu yëpp ay jaar la yoo xam ne sëriñ bi dafa doon jonjoog taalibe yi di leen def ci ñoom li nga xam ne mooy tarbiya sëñ Fallou it mu mu mu mën nañ dafa la mortalee tarbiyaam. xam ngeen sax xissa bu siiw boobu nga xam ne sëñ Fallou ci boppam nettali na ko bi nga xamee ne sëriñ bi dajale neen moom ak sëñ Modou Moustapha Euh, sëñ Masamba ak sëñ ma roqee Buso di leen xamal ne euh, lii jariñ ci moom du rek diw sama maam sëñ bi sama mbokk la wala sama doom la wala sama mag la bokk sama mag la wala sama euh, sama sama sama baay la wala sama nijaay la loolu du mooy liy jariñ waaye lii jariñ mooy soobu yi nga xam ne mooy yoonu tasawuf doon taalibe histoire bu siw boobu foofu la xawee woon ca Thiel ñoom ñëpp ñu yeesalaat seenu laxasaay Euh, fa nga xamee ne fa lañ jaaroon rek ca ca ca ca Mauritanie yee salaat loolu kon loolu yi foofii la la xewee woon kon mën nañ ne euh, daanaka tarbiya gi ci ñaari étape yooyu daanaka fa la fa la fa gën a fa gën a amee muy diggante Mauritanie ak Thiéyène euh, Thiéyène sëñ bi mi ngi fa dem 1907 ba 1912 kon daal mën nañ ne buñ sukkandikoo ci la nga xam ne moo ñëw ci téere bi diggante 1903 ba 1912 man nañ ne diggante boobu yëpp sëriñ bi da koo nekk ak sëñ Fallou da koo nekk ak sëriñ bi mu koy mu muy def ci moom li nga xam ne mooy jikko yu rafet yooyu waaye nag ginnaaw bi ñu jugee foofu dem njaareem it sëriñ bi ànd na fa moom mën nañ sax ci diir boobu nga xam ne mooy njaareem fa la fa la wàccee fa la wàcc fa la bi wàccee maanaam ci li nga xam ne mooy ba mu demee xam ne kii kat li mu bëggoon ci moom lépp mi ngi ci moom ak mbokkam yooyu mu àndaloon euh, sëriñ bi wàcce leen digal leen ñu sanc ay ay ay dëkk kon mën nañ ne ci ci ci ci diir boobu 1913 euh, surtout si la sëñ Fallu ñëw fi nga xam ne mooy ndindi sanc ko ci ndigalul sëriñ bi nga xam ne moo ko digal ngir mu def ci taalibe yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la koy booleel la nga xam ne sëriñ bi def na ko ci ñoom an na fa ak ñu baree bari nag ci ay taalibe yoo xam ne sëriñ bi ci boppam euh, moo ko boole ak ñoom nga xam ne ay taalibe sëriñ bi lañ woon mën nañ see tudd rek ku mel ne sëriñ Ibra Xari Ndiaye sëriñ Góor Mag Sey ku mel ne sëriñ Abdou Xayta njaay nga xam ne sax mën nañ ne turu ndindi Abdou ci moom la jógee ndax mooy ki nga xam ne moo njëkk a doon chef de village dëkk boobu naka noonu it mu ànd fa ak ñu baree baree bari ci mbokk yi nga xam ne euh, taqoo woon nañu Serigne Fallou mu def ci ñoom lu baree baree bari ci ay ci xam-xam ci ci yar ci yar leen ci li nga xam ne mooy xidma yar leen ci li nga xam ne mooy sàkk lu lew mën nañ cee tuddu rek ku mel ne sëñ Cheikh Thioro Mbacke ñu Serigne euh, sëñ Cheikh Afsa ku mel ni Serigne Mbacke Bousso moom Serigne Ibrahima Mbacke Serigne Ibrahima Bousso ku mel ne Serigne Ousmane Bousso moom sëñ Cheikhu ku mel ne euh, Serigne Bousso Safoor moom sëñ Baaram sëñ Saa ku mel ne sëriñ Naar Jenn moom sëriñ Baara Jenn ku mel ne sëriñ Mafari Ndiaye sëriñ Mbay Sall sëriñ Cerno Fall sëriñ Modou Ndiaye Binta sëriñ Alhaji Bousso Tamba kon ñooñu ñenn lañ ci ñi nga xam ne rek nekkoon na nag sëriñ Fallou ca Ndindi mu def ci ñoom li nga xam ne moom la sëriñ bu mag bi defoon ci moom ci xam-xam ba ca yarba ca jikko yu rafet ya ci nangoo liggéeyal sëriñ bi waaye nag nangoo liggéey fàggalu lew loolu moo def ko ci ñoom kon loolu mooy pàcc bu njëkk bi nga xam ne mooy buntu ñaareel bi mooy formation Serigne Fallou ci wàllu ngiru tasawuf ci wàllu yar bi nga xam ne sëñ bi def na ko ñoom beneen bi nag mooy xaajum ñaareel bi ci buntu boobu day jëm ci jikko yi nga xam ne nag moo juddoo ci loolu nga xam ne sëñ bi def na ko ci moom kon ne xam na ne tasawuf moom euh, ñaari ñaari mbir ko tax a jukk muy ni ñu tuddee taxliya ak taxliya taxliya mooy fexe ba lépp loo xam ne jikko ju ñaaw la ñu jëlee ko ci doomu aadama bi waaye nag taxliya mooy lépp loo xam ne jikko ju rafet la ñu def ko ci moom day fekk nag ne balaa ngaa ndab moom bala nga caa def day day day set ba pare kon taxliya boobu loolu lay jëriñ ginnaaw buñ raxasee ndab li ba pare nag duy gi nga xam ne moom lañ ciy duy nag mooy taxliya lañ ciy duy nag mooy jikko yu rafet yooyu nga xam ne moom moom war a nekk ci moom bu dee Sëñ Fallu nag eh, mboolem jikko ju rafet yoo xam ne yàgg naa nekk ci nit ku baax rek maanaam boo ko xoolee ci moom danga ko ci gis ci ci tënk ndax ka ko yar moo def ci moom loolu lépp muy jikko yu rafet yëpp yi nga xam ne rek moom lañ mas a xam ci ci ci nit ku baax ñu baree bare bari seere nañ ci moom tudd ci moom ay jikko yu baree baree bari ku mel ne sëñ Mouhamadul Mahmoud Niang ñu gën koo xam sëñ Mour Mamoun Niang euh, indi na ci téere bi nga xam ne mooy Nahjul Qawim te ñu indi ko ci téere bi ay jikko yu rafet yoo xam ne euh, seereel na ko Serigne Fallou mu indi ci rek lu mel ne bëgg gi nga xam ne bëgg na ko sëñ Touba te mooy jikko ji njëkk ji xam ne kuy seeral sëñ sëñ Fallou rek moom nga koy seeral nag naka noonu it yërmaane jinga xam ne ëmbaloon na ko mboolem doomu aadama yi ak njiit gi nga xam ne doon na ko njiit gu baax ci ci te loolu ci ak xilaafam ko ko xool gis ko na noonu nit ki mu doonoon koo xam ne ku jàppandi woon ay mbir la ku ku ku yomba ku yombal ay mbir nga xam ne mbiram lenn doonut lu ci lu amutoon lenn jafe ci ay mbiram ku ci kuy jëflante ak moom naka noonu it yaatu goo xam ne yaa ko yaatu woon na ko dënn waaye nit koo xam ne ko amoon xorom la te mënoon kaf loolu bokk na ci yi nga xam ne euh, sëñ Mouhamadul Mahmoud Niang seereel na ko ko naka noonu ku mel ne euh, doomam ji nga xam ne mooy sëñ Modou moom sëñ Abdul Qadir moom it am na ay seere yoo xam ne def na ko ci waaye seere yooyu daanaka wute wut li nga xam ne rek moom la sëñ Mouhamadul Mahmoud Niang wax ci mom ci ay jikko yu rafet. yoo xam ne euh, nekk na ci nekk na ci moom naka noonu it sëtam bi nga xam ne mooy Serigne Cheikh Abi moom it indi na ci ay jikko yu rafet yoo xam ne tudd na ko ci sëñ Fallou te jikko yooyu mooy yi nga xam ne rek mooy nit ku baax yi mu yi mu baaxoo am nit kuñ defar it jikko yi nga xam ne mooy ne ci moom mooy jikko yi nga xam ne moom lañ tudd waaye teewul nag ginnaaw bu ñu wax xamee ne mboolem jikko ju baax mi ngi ci moom am na nag ay jikko yoo xam ne moom da ko ràññeeku lool nga xam ne ku tudd Sëñ Fallu rek sa xel day dem ci jikko yooyu yooyu it euh, indi nañ ci aslëf ci téere bi nga xam ne nii lañ ko toftalee bokk na ci comme ni ma ko waxee sànq muy dëggu gi nga xam ne dëggoon na dëggu woon na ko ci euh, ak cofeelam ci cheikhul xadim bëgg gi bëggoon Serigne Touba ak taalibe gi nga xam ne nekkoon na ci moom lu mooy jikko ju rafet ji jëkk ji nga xam ne moom moom lañ koy seeral te loolu bokk na ci li koy euh, tegtale rek mooy xasidaam googu nga xam ne wayoon na ko ba muy jébbalu ci sëriñ bi ci njaareem di ci xamal ne ko maanaam lépp loo xam ne doxoon na seen diggante ci wàllum njureel jaay na ko jëndee ko li nga xam ne mooy ak taalibe waaye sax yemu ci waaye njëg gi nga xam ne moom la ci naroon a am njëg googu jël na ko def ko def ko xaddiya kon euh, xasida googu lenn la ci li nga xam ne day wane cofeel gu mag gi nga xam ne serigne bi serigne Fallou eumbal nako serigne Touba waye yamu ci amna yenen qasida yu bëree bëri yo xamne euh way nako ci ci ci li nga xamne moy ciofel gi nga xamne amna ko amna ko ci ci ci ci ci serigne mag bi bokku na ci rek manes na ci tuddu wi nga xamne mi ngi tambale hubbi lahu dahr qad afna dumu'i id xubbi jamii al wara la shakka ansaani loolu mooy bayit ñaar bi soxaa mi ngi tàmbalee ci mahabbatu cheikhi fi sirrin wa wa ajrat fadaila fi sirrin wa ilaani di xam le nag ne cofeel ci sëriñ bi ci lu nëbb ak ci lu feeñ mooy li nga xam ne may na ko ay ngëneel yu baree bari yoo xam ne yu feeñ la ak yu nëbb waaye di ci xam ne sax ne bëgg gi nga xam ne bëgg na ko sëriñ bi moo jeexal ay ronkoñam tey bëgg gi nga xam ne moom la ko bëgg moo tax ba mënatut a bëgg leneen lu dul moom kon loolu day wane cofeel nga xam ne amoon ko waaye di xam le ne sax ne euh, li nga xam ne mooy bëgg sëriñ Tuubaa Euh, maanaam maanaam tuur say ronkoñ ci ci bëgg Serigne Touba di xam ne ne moom loolu da koy jàppee farata sax kon loolu day wane jikko jooju nga xam ne moom la nekkoon moo nekkoon ci moom. Euh, jikko ñaareel ji nga xam ne Serigne Fallou ràññee woon na ko mooy ak tabam Serigne Serigne Fallou ko tabe woon nga xam ne wata këram mbooleem ñi nga xam ne ñoo way ñàkk ñi ak ñi nga xam ne dañoo yittewoo mooy seen jubluwaay. muy muy muy muy def ci ñoom lu baree baree baree bari di leen jox alal ju baree baree baree bari nga xam ne daawul denc benn alal jëmale jëmale jëmale suba. loolu bokk na ci rek li koy firndeel li nga xam ne docteur Khadim Mbacke euh, wax na ko di wane ne euh, sëñ Fallou bis bi gënoon a metti ci moom mooy bis boo xam ne xëy na te amul lum jox ñi nga xam ne ñoo koy dikkal waaw nga xam ne mooy bis boobu mooy bis bi gënoon a moom nga xam loolu nee na boo xoolee sax ci xar kanamam day feeñ ci moom wala sax ci ci ci ci mën naa feeñ ci moom ci ci ci ñi muy jëflante wala sax mu day fa tëju nga xam ne bu fekkee ne amul li nga xam ne moom lay moom lay joxe kon loolu di wane tab gi nga xam ne doonoon na ko waaye sëñ Cheikh abid yokk ci yeneen ci ci ci ci ci luy wane ak tabam mooy yi nga xam ne daana ko def lu mel ne ñi daa yóbbu ñuy ñuy dem màkka ñim mu daa takkal soxna ñi nga xam ne ñoom la yoroo leen seen kër di leen yore joxal dépense ñi nga xam ne ñoom la daa tabaxal ay kër ñim mu daa jox ay oto ak muy lu bare bare bari yoo xam ne luñ xam la ci moom ci yoo xam ne daa daana ko def te loolu it daaw ci daaw ci yokkot da ko daa def di ci am mbégte day mel ne daal balaa gën a bég rek maanaam day day def yooyu waaye it ci jikko jooju muy tabam boo xoolee ñu baree baree bari ci waykat yi tagg nañ ko ci bu baree baree bari ku mel ne ibnu hanbal alxasani muhammad abdullahi al alawi muhammad ibnu abi madiana ak ñeneen ñu dul ñoom ñoo xam ne tagg nañ ko ci ci ci ci ci jikko jooju meneen jikko ji mooy mën muñ ak dëddu àdduna loolu ay jikko la yoo xam ne euh, yar bi nga xam ne sëñ bi yar na ko ko def na ko ci moom euh, sëñ Fallou ku mënoon a muñ la ndax wax ne nañ ne njëkk muy nekk xalifa Euh, dund na at yu bëree baree bari yu métti yoo xam ne lépp da ko muñ te at yu bari yoo xam ne daanaka jege na ñeen fukki at euh, wala sax mën naa juróom-benn fukki at yoo xam ne euh, dundu na ko mu doon at yu méttee méttee métti waaye nag teewut mu ànd ak muñ te loola sax mu ngi tàmbale ci nekkuk sëñ bi bi fi sëñ bi nekk nga xam ne daana def léeg-léeg sax muy bind eh, ay leetar di ko jëmale ci sëñ bi di jàmbat eh, mettit wi nga xam ne moom la moom moom la àdduna metti ci moom waaye teewul sëriñ bi daa dalal xelam eh, ci ci ci ci léeg-léeg sax ko daa ko daa aaye sax maanaam jàmbat yooyu waaye ba mu ba nga ne mën a xam ne daal lii sës na te mënta ñàkk faaw sëñ bi rek la gis ne moo ciy moo ciy saafara daa jël xasida ak sëñ bi nga xam ne moom la moom mooy bi bi mu tàmbalee chakawtu umuri wa dambil azim jël ko yónnee ko sëñ bi bi ko sëñ bi gisee xam xam ni mu bëgg a wax xam ni mu bëgg a wax ci la sëñ bi nag taalif geneen xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee bikal yow ma akmaltu bikal yow ma akmaltu nga xam ne mi ngi tàmbalee billadi zabba ma karihtu yaqina li si wa siwa wajh wijhati wa duran yaqina euh, yónnee ko sëñ Fallou xëy na sëñ Fallou moom bi ko bi mu gisee xasida gi xëy na xamul dëgg-dëgg li ci sëñ bi jubloo wax li ci sëñ bi jubloo wax waaye nag euh, sëñ bi moom mi ngi ko doon junj rek ne ko jafe-jafe yi moom dana dana dana dana jeex te it xamal ne li nga xam ne mooy li may euh, li li nga xam ne moom laa yéene euh, suñu borom dana ko mottali ci yow. am na sax xissa bu ci am boo xam ne mi ngi ci teere bi mooy digganteem ak sëñ Afe ñam bi mu ko wanee xasida gi sëñ Afe it xamut xëy na li ci sëñ bi jublu dëgg-dëgg waaye bi sëñ Fallou demee ba nekk xalifa ci la sëñ Afiya fàttali ko xasida googu. daal di yabal euh, benn euh, ku ñuy wax sëriñ Baara Ndiaye ne ko demal ba ci sëñ Fallou nga jàng xasida gi bi sëñ Baara Ndiaye ba ci sëñ nag jàng xasida gi ci la sëñ Fallou nag door a xam dëgg dëgg nag li nga xam ne moom la ci sëriñ bi sëriñ bi jublu kon loolit di di di di di wane euh, mettit boo xam ne yàgg na ko dund waaye teewul nag ba lépp baaxee it mooy ba jamono neexee it teewul dafa dëddu àdduna dafa dëddu àdduna gis na ne lépp ñëw na waaye teewul nag mu wan gannaaw lépp xam ne Euh, ni mu ko waxee ci xissaam bu siiw boobu ci digganteem ak sëriñ Bousso Ilimane euh, ne ko xamal ne ko gan gi nga xam ne daal moo ñu dikkal te muy xilaafa gi misaal mi ma koy jox mooy koo xam ne sëriñ da la da leen digaloon ngeen gasub teen ci bëccëgu weeru koor mu tàng lool nga mar lool bi nga bi nga xamee ne dem nga ba ba ba bi waaj a so euh, teen bi ten bi bënn muy ndox mu neex lool sedd lool mu ko ndax bu boobaa dañuy naan ci ndox mi wala dañuy bàyyi ba jant bi soo ñu maanaam ñu dog door a naan suñ bu sone ko ah, dañuy bàyyi ba ba dog jot ñu dog door a ñaan mu ne ko nag loolu mooy misaalum suñ li nga xam ne mooy gan gi ñu dikkal euh, mooy nañ ko nañ ko nañ ko waat muy xilaafa gi li muy neex neex li xéewal yi bari bari man ak yow moom nañ ko nañ ko waat nga ko xamal ne du leer na ma ne duma fi dund lu lu mat li nga xam ne moom laa fi dundoon waaw kon loolu di wane euh, dëddu àdduna goo xam ne nekkoon na ci nekkoon na ci nekkoon na ci moom kon loolu ci jikko yi yi nga xam ne jikko yi sëñ Fallou la muy mën muñ waaye nag ak dëddu àdduna bi ci topp mooy yërmaande gi nga xam ne ëmbaloon na ko mbooleem doomu aadama yi loolu ci jikko yi nga xam ne moom la ràññeeku la mu nekkoon yërmaande ci mbooleem mbindeef yi nga xam ne sax am na muridam koo xam ne ku yàgg ak moom ku tax moom la te yàgg ak moom muy Serigne Thierno Fall am na lu mu ko mas a wax ne ko man daal gis naa ci yow ñetti mbir yoo xam ne euh, jaaxal na ma muy bu njëkk bi mooy euh, da ngay gis nit xam ci moom ay ayib waaye da koy da ngay mel ne ku ko xamut da ngay gis nit xam ci moom ay ayib waaye nga mel ne ku ko xamut te xam nga ko bu baax a baax ne lii ayib la ju ci moom ñaareel bi mooy nit da lay tooñ nga mën a fayu ba pare jéggale loolu it ne ko ne ko jaaxal na ma ci yow beneen bi mooy ne nit da lay nax nga xam ne kii dalay nax ba pare nga nangu tàbbi ca biir nax jooju ne ko man ñett yooyu daal jaaxal na ma ci yow lool kon loolu di wane euh, yërmaane gi nga xam ne moo nekkoon moo nekkoon ci moom euh, beneen bit mooy li tegtale yërmaandeem gu bari mooy saa yoo xamee na jamono mas naa naqarit eh, sëñ Fallou daane bind lu bëree bëri ay xasida di ci tawasul ci sëriñ bi di ñaan suñ borom ngir mu teggi jafe-jafe yi nga xam ne moo dal ci mindeef yi loolu lu bëree baree baree bëri am gis nañ ko ci ay xasida yoo xam ne def na ko euh, bokk na ci rek eh, xasida goo nga xam ne gu siiw la muy li gayrika la nashko ilaha wara amra wama wama in lana illa illaa ilayka altija dahra xasida gu goo xam ne ci ci ci waa fànn googu la jëm bokk na ci liy tegtale loolu mooy xasida gi nga xam ne defoon na ko uh, ci at moom nga xam ne njéeréer yi maanaam bari woon nañ lool bay nar a yàq mbay mi mu bind xasida uh, di uh, tawasul ci barkeb sëriñ bi ngir suñ borom wàcce dindi dindi njéeréer yooyu waaye it yemu ci loolu saa yoo xamee ne nawet naqari na ku ne xam na ne daana daana daana daana daana def lu baree baree bari di di ñaan ak sax di di di maanaam li nga xam ne mooy taw ngir mu am loolu am na ci xissa boo xam ne doxoon na digganteem ak sëñ sëñ Manumbe nga xam ne mi ngi ci teere bi mu doon xissa bu xissa bu yéeme boo xam ne it euh, ba mu ñëwee ci moom sàkku ci moom it euh, ci sëñ bi la dem rek ci barabu sëñ bi la dem wax ak sëñ bi euh, maanaam nawet bi ne mujj jàppandi lool te loolu mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci biir teere bi kon loolu ci jikko yi nga xam ne it mbokk yi leera nañ ko ci bi beneen bi nga xam ne moo ci topp mooy Euh, ubbi ko sëriñ Fallou ak yaa yaatu goo xam ne culture am yaatu na ko sëriñ Fallou ku ubbi ko la woon ku ubbi woon ku amoon culture la. te loolu bokk na ci li koy wane mooy ni nga xam ne noonu la daa gàttanoo nit ñi ñi ko daa dikkal bari na waaye ku mën di doon ak foo mën di jugee boo ñëwee dana la yaatal dana dalal dana la teral def ci yow loo xam ne maanaam jox la ci jëmmam jox la ci alalam jox la ci teraangam lépp loo xam ne maanaam nit ki xamut sax mën naa jàpp ne kii li muy def ëpp na waaye teewul li ko waral mooy yaatu gi xam ne nekkoon na ci moom naka noonu bokk na ci li wane yaatu culture am mooy eh, tawfeex gi nga xam ne suñu borom defaloon na ko ci mu moo ko mën a leeral ay waxam mën a leer lool waaw mu amoon la ñuy tuddee jawaamiul kalim nga xam ne wax ju wax ju ndaw sëñ Fallou mën na koo wax nga déggee ci lu baree baree bare maanaa ju baree baree bare loolu day wane yaatu gi nga xam ne culture am yaatu woon na ko waaye bokk na ci li nga xam ne mooy euh, ya ni mu yaatale woon déggin wi nga xam ne mooy dégginu jaamu yàlla euh, pour moom jaamu yàlla yemutoon rek ci julleegu war ak yu ni waaye gënoon na ko romb mu moo tax mu daan wax naan dee leen jaamu yàlla ci jaami yàlla yi loolu loolu day wane maanaam ak ak déggam gu yaatu goo xam ne Euh, sëñ sëñ sëñ Fallou amoon na ko bokk na ci it li nga xam ne lay euh, wane maanaam ak ubbikoom mooy saa yoo xamee ne nit mas naa ñëw ci moom di ko jàmbat am am lu ko naqari euh, lu ci baree baree bari bala ko balaa koo fajal aajoom ci wàllu matériel dana dana dalal xelam wax ak moom ci anam goo xam ne maanaam loola rek daanaka mën nañu doyoon nañ ngir ngir ngir lijjanti jafe-jafe yooyu. ba naka noonu it bokk na ci li wane ak ubbikoom euh, ubbiku goo xam ne ubbi woon na ko ci ñëpp suñ fàllu xamutoon kii sama taalibe la kii du sama taalibe kii fii la bokk wala keefee la bokk loolu ku xam suñ fàllu xam ne noonu noonu la meloon ñëpp la daan jëflanteel euh, misaal mi ci gën a jege rek mooy euh, doomam yi nga xam ne jëloon na leen ak ñenn ci mbo doomi taali taalibe yi yóbbu leen ca jaamia islamiya ci Arabie Saoudite ngir ñu jàng fa Euh, loolu xisa xisa bu yéeme la boo xam ne docteur Xaadim Mbàkke rotal na ko te mu ñëw ci téere bi nga xam ne ki nga xam ne mooy Abdul Aziz Ibnu baas euh, mi nga xam ne moo jiite woon daara jooju bi mu ñëwee maanaam ñu ñëw ñu présenté ko délégation bi nga xam ne moo jógee ci Sëñ Fallu euh, mu xam ki leen fi indi xam lépp dana leen yéen ñi di kii leen seen baay jii ku baax la maanaam jullit dëgg la ndax xam na wuute gi nga xam ne moo ne ci ñun ci wàllu diine suñ diggante ak ñoom waaye teewul mu fi ngeen ñaan jàng kon xam na ne ci wàllu pas-pas ci wàllu maanaam euh, suluk ci wàllu jaamu yàlla sax ci wàllu ngir ku ne xam na ne ñun ak ñoom am nañ ay wuute waaye teewul suñ fàllu xamoon na loolu lépp waaye mu jël ak yóbbu leen fa ngir ngir ngir ñu jàng euh, bi nga xam ne nag mooy bi ci mujj ci jikko yooyu nga xam ne moom mooy jikko yi nga xam ne sëñ fàllu maanaam nekk na ci moom mooy nuroo gi nga xam ne nuroo na ko sëñ fàllu Euh, sëñ Touba mi nga xam ne moo def ci moom lépp te loolu jaakaar naa du du lu kéemtaane ndax nit ku nekk ka ko yar moom lay moom moom mooy ki nga moom lay moom lay nuróol euh, nga xam ne dafa jël léppam mboolem jikko yi nga xam ne moo nekk ci sëñ Touba euh, dafa dafa dafa nekk ci dafa nekk ci moom nga xam ne sax ku mel ne Mouhamed Abdallah Al Alawi wax na ci moom ay bayit yoo xam ne day wax ci nuroo gi nga xam ne sëñ sëñ Fàllu nuroo ko sëñ Touba wax yu am solo wax yu yéeme mu ne qad qaala man ra'aahu fi sibaahu sayushbihu cheikhu rida abaahu ma ne képp koo xam ne gisoon na sëñ Fallou ca ba muy nekk waxambaane ba muy nekk ndaw wax nga ne kii de dana nuroog ki nga xam ne mooy baayam kon loolu mu doon lu yéeme mu wax ne wa xaasilul amril xadimu antahu fa anta aynuhu wa anta zaatuhu nee na li wax ji daal li koy jeexal daal mooy yow daal yow yow yow sëñ sëñ Fallou yaay sëñ Tuubaa waaw yaay léppam yaay jëmmam yaay léppam loolu it yaakaar naa ñi nga xam ne xam nañ dara ci ci Sëñ Fallu xam nañ ne xam nañ ne noon noon noon noon nii la demee waaw kon daal ñu xam ne euh, Sëñ Fallu sëñ sëñ bu mag bi nga xam ne moo def ci moom lépp mooy ki nga xam ne it moom moom léppam la jël waaw te wax naa ne maanaam bi mu koy tarbiya diggante biñ nekk ñoom ñaar ci ca ca Mauritanie ak ca Thièyène loolu at yu bari la fukki at ak nangam kon loolu yaakaar naa du kéemtaan euh, sëñ fallu ñëw di ñëw di ñëw di sëñ Touba kon yii ay tënk la yoo xam ne ci ay jikko yoo xam ne sëñ sëñ sëñ Fallou ràññee ko woon na ko mu ñëw ci buntu bi nga xam ne mooy buntub ñaareel bi kon xam naa duñ guñ guñ gën a guddal dañuy yamadi foofu rek wa axiru daawaana an alhamdulillahi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.